la daal di janool fi ñu ne laata sax moo wutali rek lu njëm ci digganteem ak soxna so di ji Sarr njiital Pastef nag mel ni ah, jamono ji daal moom ay condition yi mu teg daanaka kenn bëggu koo dégg benn yoon baral nag jamono ji ay ah, yéenekaay bi jàpp nag ni donte sax mu ngi jéem a fipp fi ñu toll daal loolee di justice moom dana wéyal li nga xam ne ah, moom moo jëm ci alo agenda ma jàpp leen sax ni jamono ji njiital tribunal mi nga xamante ne ni moom kott mën a joxe ab ordonnance de prise ni sax jàpp ni enquête yéenikaay la muy xam ne daal moom mooy joxeegu ko donte lu ni mel am na Walf Quotidien yéenikaay moom dellu si na nag ci Ousmane Sonko ak waxtaan wi nga xam ne euh, seq na ko ak suñu naataango yu groupe Walfadjri ay kàddul nag yoo xamante ne ni jur na coow lu rëy Idrissa Seck dal di koy tontu rek xam ne nag ne moom ma Ousmane Sonko ay kàccu kott rek la daal di euh, nettali ci jamono ji nga xam ne euh, ma nga doon janno ak Pierre-Edouard Faye ci wet gi rek jàpp leen ni kii di na bokk moom jot na ci rek addu tamit xam ne ni jamono ji daal moom Ousmane Sonko dafa yëg boppam dafa war a rek xoolaat taxawaayam ci li nga xamante ne ni ah, moom mooy bi lekk làngu ko politique Vox Populi ah, yéenekaay moom moom ba ñu ca gën a xuus sax daal di xam ne nag ne jamono ji njiital agir nee ah, na daal Ousmane Sonko jamono ji dafa mel ni coureur xamul fu muy teg tànkam Ousmane Sonko na daal di dellu si ndaxte nag turam daanaka intéressé wul kenn moom Ousmane Sonko bu fekkent ni nag dafa yaakaar rek ni du mu ngay nax boppam bu baax a baax moom daal dafa teg boppam foo xamante ne ni Euh, ñi nga xam ne daal la ñoom ñooy ay yonent sax daanaka teguñu fa seen bopp moom daal dafa war a jox li nga xamante ni a loo xamante ni daal moom moo jëm ci ay gàkk-gàkk na lépp loo ne ni euh, moom Ousmane Sonko daanaka euh, na ko te na ko xel ne moom Ousmane Sonko na ne waxul dëgg loole nag bokk na jàll ci li nga xam ne moom Idrissa Seck jot na ko yëkkati laata moo xam ne ni feebar googee muy doon jàmbat moom Idrissa Seck gisu ko benn yoon jamono ji nga xam ne euh, ñoom ñoo ñi na nga doon euh, waxtaan ndaxte nag fasalu rek lenn loo xamante ne ni wane na ne euh, yaramam dafa xawoon sooxe Idrissa Seck ak Thierno Bocoum daal taakale nañ Idrissa ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko cootuk yëglekaay bi boobu lekk taaklu bokk na tam li nga xam ne jot nañu ko gis ci bi di le peuple quotidien le peuple moomee namit kafa yey kàddu rek daal di koy yàbbi moom mooy masali mi nga xam ne daal jàpp na ne Ousmane Sonko moom sax yemul rek ci ay kàcc ndaxte ah, na muy def daal moom mooy sos lépp loo xam ne daal ab situation la ngir nag daal di ah, jëmale boppam kanam loole mu mel ni rek ab théâtrekat moom masali sax daal ci teg daal ne buñ doon joxe raaya nag ci ki nga xam ne moom moo dàq kàcc ci làng ko politique gile ah, mëneesoon nañ ko jox Ousmane Sonko ndaxte daal lépp loo xam ne daal mu ko fi gis ne na tàmm na ko te faral na rek di ko def noonu sax moom masali daal jàppale ne lu ëpp la daal di xam ne ni jot na ko daal li daal di fësal moom jàpp ni jamono ji Ousmane Sonko nag lu dul ab manipulation defu ko waaye tamit jàpp na rek ne fi ñu toll daal dafa mel ni ab mur boo xam ne daal daf ko ci lal rek di dem ndaxte xam na ni jamono ji fa mu jëm daanaka ndox amu fa mu jàpp daal ni Ousmane la bëjë li nga xam ne ah, moom mooy xelu ko askan wi loolee la daal xëy rek ne ko fàng ci xëtam wu njëkk bés bi la jour ci coow looy de jàpp na rek ni jamono ji nag mbiru ko ñetteelu ko candidature am na ci ab juriste français boo xamante ngay valider bi lekk candidature buñ koy xam nag kookee mu ngi rek ci turu Guillaume Drago mi nga xam ne ab constitutionnaliste la yéen kay nag nañu moom moom sax taxaw na rek daal di ci addu bu ko weesoo réewug Sénégal ak ñi nga xam ne daal ñoom la ñu duppee sorcier blanc ci wàllu ko droit ak Idrissa Seck nekkee ni Carcassonne loole nag bokk na ci li nga xam ne nii bés bi la yur ay jot na ko fësal ci coowal ñetteelu ko mandat bi le njiitu réew Macky Sall gën rek di defar loole di wàllu ko défense am bu ñu média critique yéenikaay moom ci coowal Ousmane Sonko la daal di dellu si jàpp nag ni njiital Pastef moom jamono ji daal dafa mel ni leeralul benn yoon ci teewaayam foofee nga xam moom mooy tribunal ci li nga xam moom moo ko fas yéene boole ak soxna si di euh, Adji Sarr jàppale nag ni euh, tribunal bu grande instance daal moo ngi toog rek di ko xaar waaye jamono ji dafa mel ni yëf yi ab secret la rek ci moom euh, mii di njiital Pastef soxna si nag jàppale ni nag li nga xam ne critique samp na ko nege ne ab laaj waaye tamit ndax Ousmane Sonko rek dafa tiré ab coup fatal bokk na ci tam li nga xam ne euh, ñoom waa critique yéen kaay xëy nañ daal di koy fësal Ousmane Sonko ak i condition maanaam euh, la mu teg nag bu fekkente ni rek bëgg nañ mu dem tribunal bokk na ci le quotidien le quotidien la mu xëy rek daal di fësal nañu nag jamono ji euh, nguur gi nee nañ duñu ci dégg lenn moom Ousmane Sonko nag ma nga doon sàkku rek ñu daal di dindi loole mu duppee ab blocus maanaam nag bara Cheikh Faye rek ci boru ko këram waaye tamit ko euh, mu jaar yoon bu ko neex jamono ji nga xam ne daal dana dem foofee ca biir tribunal jàppale ni euh, fukki fan ak benn ci weeru euh, mai bi nga xam ne daal mu la ñu nekk nii jàppale ni le quotidien mu ñuy xamal ne moom jot na nag loolee di ab convocation boobu ak léegi l'info yéeni kaay ci coowal yoon des na ak ñun nag ci mbiru maître njaay mi nga xam ne moom topp nañ ko nag ca kanamu bâtonnier ba la ko waral daal bokk na ci ay versement indemnité expropriation yoo ni daal daanaka daawu ko defal ko kee di client tam Sané eh, tribunal bi nag moom jot na cee sëgg sax dal di joxe ab décision du sàkku ci moom nag jamono ji mu daal di fay rek eh, fanweeri million ak juróom yoo xam ne daanaka eh, teg na yeneen i koppar ci lii nga xam ne moom mooy coow la ñu koy toppe las yéen i kaay jël kàddu gi tey ji jébal ko Cheikh Tidiane Gadio ci coowal ñetteelu ko mandat bi nga xam ne daal ñu ko ko fiy rubandaat waaye tamit mbiru ko dialogue national moom nag xëy na rek daal di fësal la ñu duppe dëggam njiitu réew Macky nag la woo Boundaye tamit ndaxte ah, jàpp na rek ne moom amatul lenn loo xam ne dana ko fësal wala bokk ah, ci kanamu askan wi fi mu nekk daal def na liggéeyam ba noppi eh, fi mu dool daal dafa rek war a bàyyi ci li nga xam ne daal moom moo jëm ci mbiru ka ñetteelu ko mandat bu fekkente ni ci tànk yooyu nee na daal di taxaw kaajoo ngay bloqué ah, Macky bu ñu sukkandikoo ci suñu yenn naataangoo l'observateur yéeni kaay ci coowal dialogue bile moom nag gis na ci tam ab ndëgg sarax boo xam ne sax mënees na jur ñaari euh, société civile mi nga xamante ni tamit jot nañu cee fësal seen nuppa euh, taxawaay ca diwaanu ko Ziguinchor waddu nañ tam jëmale ci coowal euh, lycée bu Diouloulou ak ñenn nag ca jàngalekat yi nga xam ne ni duut nañ leen baaraamu tuuma ni ñoom ñooy rek dañu daal di ni ndongo Abdoulaye Diatta moom nag jot na ci indi ab leeral jàpp nag ni loole sax ñu ko tuumaal bu fekkente ni nag loole mënee su ko dégg jàpp na rek ne jamono ji nag ab gàcce la rek ci moom mu daal di rek jël ay a génne ci boppam ci euh, lu toll noonu le soleil di suñu jant bu réew tey ji euh, tukki nag ñun ci wàllu tàggat yaram njiitu réew Macky Sall daanaka euh, yàq na gaynde yu ndaw yi leen ndax fukki million rek ci koppar la leen daal di jox ci wàllu prime gi champion d'Afrique sénégalais bi nag jàpp leen daal ni képp koo xamante ni daal jot nga koo dégg ci juróomi at ñu génn njiitu réew Macky Sall dana la ndokkeel ci li nga xam ne moom mooy ay honneur am waaye daal leneen xibaar li nga xam ne ti ci nag démb dañoo daanu ci kanamu ñooñee di réew ko Japon loole ñeel coupe du monde U20 Aïcha lii mooy luutu yéen i kaay xëy fësal ci bésub tey jii. am na solo Grégoire Lionceaux yi dañuy kontaan ci ñoom parce que dañu prouvé waat au monde entier euh, que nous les champions d'Afrique hein? Ah, dëgg la football moo toll foofu noonu Sénégal dafa des ci dynamique am ñu ñaan yàlla rek.